toll nii moom Macky Sall sonj na bu baax ay jëruñam rawatina ki ñu dénk wàllub yoon di professeur Ismaïla major Fall mu daal di sëgg ci liggéey bi nu mu gën a gaawee bu ko defee ñu daal di amnistier Karim Wade ak Khalifa Sall dogal boobee njiiti réew mi daal di jël laas yéene kay di ko jàngatee ni moom Macky Sall ci boppam dafa bëgg séddalewaat carte yi moo tax bis bi di ko ci dëggal ne Macky ci boppam moo daal di fas yéene valider ñaari kaawam yëfi yamul rek ci ñaari kaa yi le quotidien nee na Macky Sall dogal bi nga xamante ne jël na ko daf cee fas yéene rek sumb ab xeex xeex ngir ñetti leader politique yi nga xamante ne kon ñoo nekk ci opposition bi jamono ji moo tax projet bi moom ci fast track la ñu koy daal di waajalee te dina tax bu ñu sukkandikoo ci yéene kay ma jàmbal jaan bi intercoalition wàllu yeewi mu daal di tas ci ñetti pàcc tas boobe la enquête yéene kaay duppee xaajale kon ngir mën a buur di bu mi noonu la njiitu mi fas yéene def moo tax nag mu daal di sàkku ñu daal di examiner ci nu moo gën a gaawee ci yan pexe la ñuy jaar ngir daal di amnistier kii di Karim Meïssa Wade ak Khalifa Sall moo tax l'observateur jàpp ni kon ab coup la njiitu mi mi fas yéene def yéene kay groupe futur média bi dikkat ci njeexital politique yi nga xamante ne dogal bi njiitu réew mi daal di jël dina ko def waaye yéene kaay bi njort na ni kon xalifa Sall ak Karim boo moyul rek ci ndëgg sërëx la ñu jëm ndax lii day xaajale opposition bi daal di taralaat xeex bi ngir atum 2024 dogalu Macky Sall le témoin jàpp ni dara waralu ko lu dul wàllu politique ak calcul képp ndax fi ak fukki weer ak juróom dañuy duggaat ci ab élection laata sax présidentielle 2024 boobu 24 heures di xam ni Macky Sall li mu namm jamono ji mooy am sonko bi indil Macky mu daal di dakk ci géopolitique gi ñu gën a yaatal yëfi kon direct news moom gisul ni ngir yaatal yëfi la waaye dafa jàpp ni dogal bi mooy fexe ba daal di isolé sonko ci boppam laata 2024 amnistie yi nekkul pour des fi atum 2024 la tribune yéene kay noonee la ko jàngatee yéene kay des médias bi di xam ne ni moom Macky Sall ci boppam li mu bëgg mooy benn immunité maanaam daal di aar ñi nga xamante ne kon ñoom ñooy ay jegeñaaleem ndax rawatina génération bi lu ñu def ni ay luubal ak i luuxur moom bëri na ba tax dafa bëgg rek daal di leen aar bu fi jógee atum 2024 jàngat yi yépp le Sud Quotidien daal di def moo tax mu jàpp ni Macky Sall ci ab po la nekk maanaam ab jeu de bi nga xamante ne ci noonee la fas yéene soobu laata atum 2024 2024 moo tax Macky Sall daal di fas yéene dellowaat xalifa Sall ak Karim Wade ci géew politique gi Les Échos jox kàddu gi Aba mbay muy xam ne ci biir yéenekaay bi ni dogal bi moom lu ñu mënoon xaar la waaye Nafi Diallo bu PDS dafa jàpp ni amnistie moom ku koy nangu mooy ki jàpp ni liñ koy tuumal yépp dëgg la moo tax ñoom duñu ko nangu ngir Karim Meïssa Wade Ibrahima Bakhoum moom li mu ci jàngatee mooy njiitu réew mi dafa bëgg rek géopolitique gi ñu gën ko yaatal mu bañ a yem rek diggante moom ak kii di Ousmane Sonko lii nag bu fekkente ne antu na ba tey ci biir les échos kii di Ousmane Sonko mooy ki nga xamante ne moo ci ñàkk jàngat la bi tukkee ci professeur Ibou Sané xam-xamam màcc ci wàllu politique Macky di politique ci biir Sénégal na ca Mali tey le réveil yéenekaay di wax ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu tàmmoon ngir ñu dox tànku jàmm diggante kon Mali ci boppam ak Côte d'Ivoire te ñooñee njiiti réew mu Sénégal Macky Sall nga xamante ne moo jiite Union africaine fas yéene ci woon bokk waaye lu nu mel boo moytul du antu yéenekaay bi ci boppam moo ñuy xamal ni colonel Assimi Goïta bugul benn yoon Macky Sall di bokk ci liste médiateur yooyu moo tax kon mu fas yéene ko ci seppi mu war a nekk kon ab lajj dëgg ngir Macky Sall lajj la nguur gi def ci xeex accident yi ci Sénégal le vrai di dikkaat ci bilan bi nga xamante ne moom la ñu nemmeeku ni ki démb ak barki démb ci ñu jote ñàkk seen bakkan ci tali bi moo tax mu jàpp ni ba léegi état ci boppam amu ci benn solution état amul solution li xew ci tali bi kon di gën di métti libération di xayma tey ñi jota ñàkk seen bakkan ci accident yi ñu wàññi leen ci ñaar fukk ci diggante rek ñaari fan ci Sénégal mu nekk autis bi nga xamante ne ñëpp a ngi koy méttitlu li métti kay mooy koom-koomu réew mi fu mu toll jamono ji enquête quotidien di dikkaat ci rapport banque mondiale ci Sénégal gis ji Sénégal ci guuta la ñu nekk ndax dund gu cher lépp daa di yokk te yëfi boo moytul di fu yem ñu yemal yëfi ci stade quotidien bi nga xamante ne sekk na waxtaan wu yaa ak El Hadj Ousseynou Diouf miy def ab jàngat ci ñaari jongante xarito yi nga xamante ne Sénégal amaloon na ko ngir waajal coupe du monde bi digganteem ak Bolivie ak Iran mu gis ni moom attaquant ba woon bu sunu gayndey gis ni équipe bi moom li mu wane dal na xel laata coupe du monde bi ci Qatar. Société nationale d'électricité bu Sénégal Sénélec moo leen doon may seen revue de de presse.